salaamaaleykum yaa booy nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay. yaa ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. yaayam laa bokk ndey ak baay. ñu mën a jox ci ki nga xam ne moo di seex. seex li ma xam ci seex bari na trop xanaa li ma leen mën a wax rek wante seex li ma ci xam bari na ndax mëneewu maa wax rawatina ma nekk ci action bi ndax seex moo doon sunu taaw. temps boo xam ne seetaanuñu ci dara demul taale di taawee ko seex lu ñu naqaree naq amuñu ci seex lu ñu metti amuñu ko ci seex seex lañu xam ci moom dem liggéey ñëw teral famille moo doon taawu famille bi de moo doon jàppale ñu de moo ñu doon dimbale de ay fu ñuy jëlee te ku mel na seex fan la ñuy jëlee te taaw bu mel na seex ndax tey jii la ñuy soog a naqar ci seex bëgg ma torop bëgg sama. bëgg sama famille bi ñëpp màggal Touba jub si mu ne day màggal si wax sama doom bu góor Bada ak sàmba mu leen wax sama yaay ne ko ñëw naa surprise laa koy defal tey geestu rek gis ma ñu tatafu seex ci yoon wi tatafu seex ci diggante bi ba gisuñu suñ doom ji mu metti ma lool nag te xamul fu ma koy waxee ndax dee lu ñàkk ku lu nafsil saa yaxatin mawti bakkan bu mos dund dana mos dee mais ni seex demee moo metti ndax ni mu demee moo metti gisuñu suñ doom mu tukki ñu koy xaar mu ñëw agsiwul ci ñun loolu moo metti moo ñu metti fa sa kanamu yàlla man nag mënumaa wax keroog ba mu wàccee liggéey la laa ko yëg keroog lañ ma ko wax ñu añ ba pare toog ni ci mbedd mi dinaa ataaya ñu woo sama doom bu góor bi bada wax ko ko muy daw rek di wër kër gi di daw rek di wër kër gi ma topp si moom ne ko lan la ba jàmm la muy ay yaay li ma ma liñ ma wax ma ne ko lañ la wax lan la ma topp ci rakkam Samba topp ci magam Ndiédi Kine topp ci ñuy wër kër gi bu mujj ma tatafu ko téye ko ne ko bada lan la bada ni ma yaay Cheikh Penda lañ wax ma ne ko luñ ci wax mu daal di noppi sàmba ni ma nee na dafa dañ ne dafa gaañu ma ne ko xanaa dafa accident kon mun ma déedéet accident wul de dañ koo arrêté woon. dañ ma woon sax bu màggal gi damay ñëw fii la daan màggale si man mu jógee kër sëriñam mi ngi si sama kër fa lay màggale ay rakkam a nga ne mu ni wax sama yaay bu ko wax ne ñëw naa dama koy def surprise. ma toog di xaar ba dégg ñu ni wàcc na liggéey metti lool nag te mu seex gi dafa metti lool torop torop torop dafa dagg si xol. Massa yaa booy Massa. yan qualité moo la gënoon a neex ci ki nga xamante ni moo di seex sa doom ji. xanaa nangoo liggéey te am jom te dëggu loolu ma ci gën a neex dëggu gi rek ma ci gën a neex ak nangoo liggéey gi. wallaahi mu ma ci gën a neex lu mu la wax dana ko def. te nangoo nag ba muy ba tey liggéey rek lañ ko xamee woon. xanaa yoon def liggéeyam loolu rek la xaar na yoon def liggéeyam ndax lii moom na yoon def liggéeyam ndax metti na torop metti na torop torop torop wax dëgg yàlla seex moom fu ñuy ameete seex xamuma ko wante nag na yoon def liggéeyam wax dëgg yàlla. loolu rek laa ci doon wax. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa maaleykum salaam fay nañ la. ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér. noo tudd. Pape ñas Niass. lan nga ci nga xam ne moo di seex. papaam laa ci moom. ren témoignage nga ñu mën a jox ci sa doom ji. ah doom yi léegi xanaa baax rek nekk doom bu yiw bu baax nangoo liggéey jàmbaare bëgg ay param waaw loolu de xam nañ ko ci moom wax dëgg yàlla. waaw nga xibaar bi nga xamante ne ni moo ko dal. si man de statut bi lañ ma wan rek dama xëy rek ñu ci guddi gi avant may tëdd ñu wan ma ko ñu lii daal moo am ma ni leen ah ñu ni ma bi daal neen décédé na gaañu na lii daal laa am. waaw affaire bi nag tiis nekk tiis boo xamante ni moom bett ñëpp waaw sax mas nañ ko gis kun yàgg nañoo gis dey mais cause bi daal ni mu demee moo métti ñëpp waaw finalement waxuma la ñun famille bi sax mais àddina bi yëpp parce que man ak papaam ñoo bokk papa waaw mun naa wax ne maa ko yar waaw parce que man ak ay sërëm ñun ñoo dëkkoon waaw ah, man may rakki papaam papam fii la gaañoo papaam a ngi Cambérène fee ñu rob mi ngi Cambérène lañ ko denc man Cambérène laa dëkk waaw ah, nii daal mooy cause bi dee bi nag mm, dee moom yàgg nañ koo gis mos nañ koo gis ku nekk di yàgg naa gis dee mais ni mu demee cause bi ni mu demee ci loo xamante ni du dara nga rey si nit waaw koo xamante ni père de famille la waaw moom peut-être kenn kenn la mais minimum dix personnes a ngi si am yoo xamante ni bàyyi na jabar bàyyi ay doom bàyyi yaay bàyyi ay sœur ñoom ñëpp moo doon soutien bi waaw xam nga loolu dafay métti loolu rek moo ñu ci métti mais de moom yàgg na fi am ku ne dee na ku nekk am nga gën a la rek moo fi nekk mais gën a métti la amu fi waaw mais ni mu dee moo ñu métti waaw te vraiment suñu sañoon moom ñu leeral la lépp waaw ba lépp ler parce que li mooy problème mu Sénégal Sénégal moom li fi nekk yëpp kenn mënu koo wax parce que mm, boo xoolee sax da nga naan état bi moo xaw a faible ci côté boobu parce que euh, am na yoo xamante ni bon sa population war nga ci mën a fexe ba yu bëri du la ci arrivé waaw loolu daal moo ñu ci metti mais loolu rek mooy kii mais kii moom jàmbaar la woon xale la bëgg àddina bëgg boppam waaw am dignité loolu moom ñëpp seddeel nañ ko ko waaw ñëpp seddeel na ko nangoo liggéey nag mais problème bi yëpp mooy loolu waaw waaw. qualité moo ci moom. moom parce que ku diiñ la. waaw ku la ku bëgg boppam. ku diñ la lool nag du hasard loolu moom ci papaam la ko jëlee parce que papaam noonu la meloon. papaam ku diñ la ku bëgg boppam. ku bëgg toilette. moom loolu moom yëpp ngi qualité googu yëpp mu gis si moom waaw ku diñ la ku bëgg boppam la nag waaw loolu su lan ngeen di xaar ci police bi nga xamante ni moo ko jëf-jëf ji. waaw mais mu tegu ci ñu jaarale ko yoon rek. waaw état bi jël ay mesures am ñu lépp leer. waaw vraiment loolu daal moom la ñuy xaar lépp daal teg ci yoon aw yoon. waaw teg ko ci yoon waaw loolu daal la ñëpp di xaar waaw waaw loolu daal bu ko defee au moins bon buleur bi dina xaw a wàññeeku tuuti. waaw dina wàññeeku ci famille bi dina wàññeeku ci même bu dul famille bi mais dina wàññeeku ci sénégalais yëpp parce que sénégalais yëpp ah, muy fii ak bitim réew fu mënti nekk ñëpp ñëpp la touché ku ko dégg rek am na loolu la naqari waaw mais loolu daal ñu ngi xaar état bi mu def si li mu ci war a def lépp waaw waaw loolu daal la ñu ci xaar. jërëjëf si merci beaucoup. asalaamaaleykum yaa booy naa la. maa ngi fi yaa si jàmm. maa ngi si jàmm laa tudd. man nga ci seex. waaw Cheikh de sama euh, frère la sama doomu tante la waa. yan témoignage nga ñu man a jox ci moom. ah Cheikh li mu mën a wax ci moom mooy daal baax amul benn problème benn problème amu ko. Euh, vendre euh, kii ba li passé mekki di bee passé daal la jugee mardi la jugee voyage enfant mu doon jugee voyage suñu daan déggante à chaque fois. sama yaay bi mu yaayam léppam la ba mardi bi mu ñëw bi mu ñëwee ci mardi bi ba mekkee di mu woote mu ne sama yaay démb laa ñëw damaa nekkoon ci ay bagages yooyu moo wolu noonu sama yaay di tooñanteeg moom noonu ñu waxtaan noonu ba ay yàgg mu ne léegi suba boo xëyee na nga ñëw naa euh, jox li ma la indiloon sama yaay nag man instant dafa ma waroon dem naa su ma xëyee suba si jeudi bi mu ne wala sa passe màggal xam naa ay trois yooyu sama woowee dinaa la sa passe màggal léegi bi ñu xëyee si jeudi bi noonu fekk ñun ñu dem màggali bàyyi sama yaay sama yaay di ko woo woo ba sonn jotu ko vendredi jeudi vendredi ba samedi yëpp mu koy mu ñu ko jot noonu noonu ba jugee jógee màggal ba ñëw ba ci jeudi bi man moom xam naa dama ko gisoon parce que dama ko jeneer ay di nelaw ni bëccëg bi nii ay 5 heures 5 yooyu génne ko gis ko nii mais bi ma koy gént maa ngi koy gént rase da koo dindi. mel ni ku feebar ci gént bi daal mais nangu la wax ak man ci ay timis rek si la sama maam benn maam Moot Kase woo ma ne ma lan moo xew sa kër tante Aram Thiam man ko la fa xew man ma Cheikh Niass man ko Cheikh Niass lan ci ma ko loolu mënul nekk. après ma woo sama yaay ba sama yaay mi woon parcelle ma woo ko téléphone sama yaay ne ma ah moom tamit loolu la dégg kenn mënu ko gëm daal parce que dafa gaaw mais kër yi nga déggante ni ki téléphone lii nii am affaire bi jaaxal ñëpp li ñuy wax ñu ne affaire carte grise kase mu yónni doom avant bi doom ji ñëw ñu dugal ko ci kaso bi patam patam meek daal door ko kenn xamul daal ñuy wax jeudi vendredi ñu defeere ko def daal leen neex amuñu si lu dul woo ñu ne gaañu na kenn yëgu ba léegi nii koor mi nangu ñu gis ko mooy loolu mi noonu waaw ba jabar ji dem lay doog a ñëw tey muy xëy ñu ne dem pour dem xool ko affaire yooyu noonu dem lijjanti ci koor bi waaw. boobu tey lan ngeen di xaar ci moom lan ngeen di xaar ci waa nguur. ah xanaa nguur def ci euh, def ci liggéeyam rek parce que tamit lii dafa metti waaw Macky Sall dafa war a jug daal ci lii. waaw daal dafa war a jug ci lii parce que policiers yi daal dañuy jàpp ni que duñ xam nan la demee daal def ko naka sudul noonu te kenn du xam jékki-jékki ñun ànd suñu doom ñu ne leen na même bu dul ñoom ñu am ñu nga xamante def na leen ko ba tey ba sànq ñu ngi nii noonu lañ ci duñ am benn résultat daal bu leer waaw vraiment daal Macky Sall ñu ngi koy ñaan mu mu jàpp daal ci loolu daal waaw taxaw ci lii surtout kii nga xamante ne moo da suñu lépp taxaw ñu bari dimbali ñu bari nag waaw kii ko def lii nag moom rayul benn kase kese ñëpp la rey presque mu naa wax parce que dafa nekkoon yaakaar waaw amoon ay projet yu bari ñoo xamante ne waxoon na ko woon ak mbokk gi ñëpp daal bëgg ñëpp amul benn problème lu mu wax ree lu mu wax ree lu mu wax nee naa xam naa policier bi leen na ma ni xanaa daloon kafam moom rek moom xam naa mu jëlee ko dëgg même dafa nit ko nekk koo xamante ne bari kaf xam naa kaf boobu nag xam naa mu yaakaar ni moom loolu muy def mu dëgg la ci moom fekk moom mel noonu lépp lu muy def kaf ree la xam naa ci kaf ree boobu noonu rek mu yaakaar ni koy manqué de respect wala leneen leneen ba tax mu def li mu ko def nii li mu bëggoon daal mooy daal yoon def li liggéeyam daal waaw loolu daal la